dal leen ak jàmm ñu xëy taaxañ yéenikaay xëyndoo tàmbale ko tribune yéenikaay yéenikaay bi ne dikkaanda ci wàllum wér-gu-yaram si réew mi yéenikaay bi a jege ne fajukaay naka ubbil yéenikaay bi ne yéenikaay na xamante ne moom la tegoon daanaka benn njëriñ gisuñu ko cam yéenikaay bi ne léegi fi lépp urgent ci hôpitaux yi nag daanaka ñoom ñëpp naka ñoo fa feebar ñoom ñoo faj ñi feebar naka ñoom ñoo gën a feebar leneen li feebar naka moo di coup de bi nga xamante brigade de recherche

ëpp li ëpp ba jéggi dayo kay moo di yaabooy boobi nga xamante si fi daanaka moo raw njéegum siraat jotee si naka yombatul ndax benn yaabooy yéenekaay bi bi xëy na koo fësal ndax jàpp ne fi mbir mi lépp a métti lépp naka dund gi seer ba tax naka yéenekaay bi ne xaw fu sénégalais jëm sénégalais kay fi ñu ko xam rek war nañ ko wax lu ci doon sénégal yi lu solo yéenekaay ne Macky Sall moo ngay jañu si relation Europe Afrique ma a gën a telloo boo xamante si ñëpp jàpp ne ku nekk war mbir mi ndax kenn warta xajamal kenn warta yàq nag kenn warta am doxalin boo xamante si dafa yàq démocratie yéeni kabidi sut ko di na ko fësal ni ki démb la ko àddu moom Macky Sall moom ak conservation du pouvoir les libéraux nag ñoom ñu ngay rêvé ci Wade rassembler ni ki démb ci Dakar international nag yéeni kabine libéral nag ñu ngay si ce projet du Pape di soppi na ko Abdoulaye Wade bëggee woon ñoom ñi nga xamante si moo fi nekkoon président la République ak réew boobu nga xamante bëgg na mooy fexe fexe rek ba yi naka wéy di yore ni nga xamante si moo di mi réew mi ak les échos yéene kaay dikkaat na ci retour nag ak na ci recours bi nga na ko naka e ay moomeelam cinq cent milliards yi naka à titre dommage pour moom deux cent cinquante millions yi nga xamante si dommage ak intérêt ngir xamante si moo njabootam ak vingt millions yi nga xamante si war na tukkee ci wàllum frais de justice bu ñu ci cour boobu nag nee na la de la faim nag moom moo indi l'origine détérioration bi nga xamante ni marine nationale amal na ko nag ak trois tonnes cocaïne bongowe maanaam xamee nañu fukki nit yoo xamante ne leen defeere nañ ca parc bi niki dem 18 téléphone téye leen ñeenti satellite benn GPS ordinateur portable ak xaalis boo xamante ne marine bi ñoo ko yore woon yéene kaay déclaration maanaam ay wéjaay nga xamante ne si nañ koo fasal chef opération boobee naka cité na si ab doomu président boo xamante ne moo nekk ci sous région bi dangay seet loolu rek ñoom patron yi rek ñoom ñooy def jëf ju ñaaw dee indi ndax 500 millions yoo fi ñu na xiini mi ci arène bi leneen loo xamante ne si di marché gré à gré maanaam marché yaa ma neex boo xamante nemee ko nañ ca ci daanaka moom itam jur na bari ay milliards rek di luubal rek tàggat yaram wax ci suñu làmb yéene kaay ak Bombardier mi am ñeent fukk ak juróom-ñaar rëg-rëg mi am fanweer ak benn B52 boobee fas yéene jàkkaarloo na ak fukk de jeunesse nag